maître El Hadj Diouf na ñàkk àndam ci loi amnistie bi nga xam ne ñoo ngi koy waaj a taxawal. amnistie ko nangu tey di ko nangu ëllëg amnistie bi moom ci suufa suufa suuf. avocat bi jàpp ni dafa jaaduwul ñuy amnistie ay nit yoo xam ne dañ leen a toppee crime. Macky Sall bi taxaw ni du mas bàyyi senegal ñu di ko taal ñëpp kontaan ci moom muy bëgg a dem lu génn bande yi nekk ci prison bi yëpp ñiy rey ñiy taal mortel combat. cooki fin gatsa a parking automobile Dakar dem dëkk ñu taal plus de cinquante daal président bu dee yaa mën a toog xalaat benn instant nga bàyyi leen Sénégal di leen la baax. maître El Hadj Diouf di artu fas yéene jàmmarloog ñëpp ñi nga xam ne dañoo bokk ci taxawal loi bi. te président bi wax ay terroristes Antoine Diome wax fi ay forces obscures ci dëgg la ñu nit président boo leen amnistier. du sax am duñu la bàyyi ngay amnistie di ko nangu nee Sénégal dëkk bu ne préparé wu leen dem ay comité contre l'amnistie wante ki nga xam ne moo di président parti des travailleurs du peuple mu ngi rafetlu bu baax ndogal bi nga xam ne njiitu réew mi jël na ko ngir daxandi élection yi gannaaw gàkk-gàkk yi ñu nemmeeku ci processus électoral bi. président mënutoon seetaan li am ni recalé yi mais xool plus de soixante recalé quatre soixante dix recalé affaire nationalité ñëw yokku ci ay ay ñu kenn xamul affaire bi ak accusation de corruption mais ce cocktail là explosif ñu ne avec tout ça nañ def ci lu soxal jalog bi maître El Hadj Diouf proposé na ay termes de référence bokk na ci ñu dindi li nga xam ne moo di parrainage bi ba noppi amal élection présidentielle ñetti weer gannaaw bu mandat président bi nga xam ne moo fi nekk jeexal nañ ko.